ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi boru yàlla doon dino ay maqaam yàllaw auzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzubillah bismillah inna waliyallah jërëjëf borom Tuuba xaadim rasul mbokk internet yi nga xamante ni yéen ñooy bàyyi xel seen jotaayu xam-xam bu rëy macha allah ñi ngi amaat mbégte tey feggowaat ak yéen waaye feggowaat ak suñu jëriñ suñu xarit suñu sëriñ macha allah ngir bëgg a waxtaanewaat lenn ci xam-xam ngir jagleelaat ko askanu Sénégal rawatina ñi nga xamante ni ngi ñuy topp di ko bàyyi xel saa su ne Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi macha allah rek. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Baay Taala ñu ngi lay fay nuyoo. di nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. fii ci réew mi ak bitim réew. di leen nuyoo nuyoo bu jotale. mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyoo bu am solo bu mucc ayib boobu xanaa rek ñu daal di jublu ci waxtaan bi gannaaw fi ne luy jëriñ askan wi rek moo ñu tax a moo la tax a jóg itam ñu fexe ba rek daal di ci taataanaat lenn rek ngir jagleelaat leen ko. tey nag li ma bëggoon ñu waxtaanee ko moom li ci ëpp solo def naa mooy njëriñu turu yàlla yi waaye fi ñu koy tàmbalee rek mooy dañuy faral di dégg ayatul kursi yu saa su ne ñu bëri am yuñ ciy wax waaye tey ñu bëggoon ngeen ñu leeral ñu tuuti ci ayatul kursi yu ak njëriñ yi nga xamante ne làmboon na ci làmboon na ci biiram ba tax na ay boobu nga indi tey ay la boo xamante ni si nii yàlla suñ boroom da ko wàcc ci jaam ñi ngir fegal leen bépp lor bu jëm ci ñoom ay boobu keroog bi mu hmm, wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni iblis ak mbooleem njabootam bi yëpp kenn amul jàmm ci kaw mbooleem fu jinne nekk dañu doon yuuxu jaxasoo di daw dañu àggee ba ci iblis lañu ko wax ni ko àdduna bi mel na ni am na lu fi xew tey ndax ñun genn wàll ci ñun tàkk nañ ñu ngi ay jafe-jafe yu ni ñoom seen fit ya dañoo am tiitaange bu leen dugg keroog nag Iblis waxee ne leen da ngeen Makka ci bi ngeen xooli lu nekk ca moom ba ñu fa ñëwee ci lañ xam ne dafa am aayal wàcc ci moom te muy aay bii nga wax muy aayatu kursi muy aaya boo xam ni jëfandikoo ko jot na rawatina ci jamono jii jamono jii nga xam ni sayaatiin yi dañoo dugg doomu aadama yi te faj leen yombul ndax dañu nekk ay sayaatiin yu am doole ñaar ci ay aaya mën nañ cee dimbali jaam yàlla yi bu ñu xamee yan yoon lañ ci jaar mooy ayatu kursi boobu ngay wax ak laqad jaakum aaya la boo xam ni ay ngëneelam ak daraja jëm àndal bokk na ci diisaayu aaya bi wax nañ ni boo demee ba xaras jëmmi aaya bi am na fa ñaari tuñ ak làmmiñ woo xam ni hmm. boo jàngee benn ayatu kursi yi làmmiñ woo wax ak tuñ yooya dañuy jàng ayatu kursi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaayika yoo xam ni kenn ku ci nekk dina ko jàng ñu boole ko bi nga jàng jox la yoon nga xam ni secret la boo xam ni bokk na ci ay yi nga xam ni ñooy ay yi gën a diis ci kaw suuf te yàlla wàcce ko nga xam ni ndimbala ko tax a jóg ci nit ñi directement moom ayatu kursi ay la boo xam ne daal xam naa buñ gën a yaatal ci biir nañ ci indi ay njariñ waaye aaya la boo xamante ni ci nii moo leen muslay lu doomu aadama di mus muslu ci digganteem ak moom ci digganteem ak junne yi ci digganteem ak bët bu ñaaw ci digganteem ak làmmiñ wu ñaaw ci digganteem ak jafe-jafe yi àdduna aaya boobu bu xamee yoon rek mën na ko ci dimbali ba taala macha allah mu Ibrahima Ndiaye alxuraan mu mel ni tamit bu ma la déggee bu baax maanaam comme kaaraange moom fi ne bokk na ci moom ayatul kursi moom dara jiituwu ko ci kaaraange moom fi ne. waaw ayatul kursi yi dañoo wax ni ku mënta la yéen la aar. yi ak malaayika yi ak njanaaw yi ñoom ñëpp bu am bokkoon amandoo benn jafe-jafe ayatul kursi mën leen a dimbali. nit ñi ak jinne yi ak malaayika yi. ak njanaaw yi suñu àndoon am ay jafe-jafe ñoom ñëpp ci benn bis ayatul mhm. kursi yi mën leen a dimbali ndax yàlla da koo wàcc rek ngir dimbali doomu adama yi rawatina yii ngay dégg ci jamono mhm. mooy nit koo xam ni dafa ànd ak ay rab wala nit koo xam ni dafa ànd ak euh, cat wala nit koo xam ni dafa am jafe-jafe yi àdduna yooyu yëpp bu ñu xamoon yoon bi ñuy jaar ci ay tukki si léegi mu wàññeeku ci doomu aadama yi koy mhm. doon lu am solo ci leeral boobu itam doon na waxtaan fi ne euh, àdduna wër nga képp dañuy xëy di ko waaye mu làmboon dëgg-dëgg dama jàppoon ni doomu aadama yi moo tax tey ko ci biir jotaay bi beneen laayaa ngi ni itam muy allahu nuuru samawaati wal mhm. ñu bëgg xam njëriñam dëgg dëgg dëgg ak tolluwaayam moom itam waaw aaya boobu mag ñu njëkk ñi dañ daan wax ni aaya bii de aaya la boo xam ne xanaa ku ko xam ci nit ñi doon milliardaire doon milliardaire waaw ku ko xam ci doomu aadama yi mhm. secret bi dañ moo tax ñuy wax mhm. dañuy wax ni aaya bii ku ko xam ci doomu aadama yi lépp loo bëgg ci jëmm ji yàlla yombal la ko waaye lépp loo bëgg ci jëmmi keneen yàlla yombal la ko dégg nga wax mm-hmm. aaya boobu ñuy wax allahu nuuru samaawaati wal ardi mag ñi nee nañ ko xam aaya bi ak secret yi ci biir lépp loo bëgg ci sa digganteeg sa boroom yàlla yombalal la ko mm-hmm. waaye lépp loo bëgg ci sa moroom moom jaamit yàlla yombalal la ko dégg nga mm-hmm. déggee ñuy wax aynul anwaar bëtub leer ba nga xam ni mboolem ruu yu sell yi dañuy daje ca bët boobu laaye bii dañ bind ci pindu teen boobu ruu yi di daje ruu yu yi mu ne laaye bii moom lañ signé foofa moom lañ bind ca ba loolu nag secret batin la waaye yàlla nu samawaati wal ardi am na ci ñu wax ni saxla ba tam mooy ka nga xam ni yonent bi da koo ñaanaloon alal mu dem ba juróom ga xajatul biir màkka nga xam ni daa mujj génn màkka ndax jur ga daa bari ñu bari wax nañ ni ci laay ji la ko suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanalee ci biir julli ñenn ñi ca gannaaw julli waaye daal laay la joo xam ni borom xam-xam yi ñu ci ëpp nee nañ doomu aadama yi bu ñu ko xamoon njëriñ yi ci biir dooni milliardaire ndax yahdillaahu li nuurihi man yasaaw mm-hmm. yombalu yàlla dafa nekk ci biir aaya bi te jigéen lool doomu aadama yi mm-hmm. nga xam ne daanaka mu ngi mel ni lu ma ko doon wax garab goo xam ne doom yi doom yi ca nekk dañoo ñoroñ ñoroñ ñor ba ngelaw man na koo waddal nga téye ci càmm gësam gësam ko xam nga léppay wadd mm-hmm. waaw ñor tàbbi de moom boo gësamee rek ñor bi dafa mel ni noonu la mel ci doomu aadama yi ci seeni aajo mm-hmm. waaw képp ku xam secret bi mm-hmm. aajo boo yor daa mel ni boo ci laale rek moom day daal <laughs> teew ci boobu noonu la defar daal macha allah mu doon itam lu lu lu lu am solo waaye eh, dam sama waaju baax joo xam damaa wóolu ki démb ne man Cheikh Ibrahima Niang ni ma ni ni mu maîtriser tur yàlla yi est que moom am ay taalibe yoo xam ne fi ne am moom boo ñëwee dina la ko baaxee ma ne ko loolu moom xanaa dama koy laaj rek ci biir jotaay yi am na ku ñuy wax ñang mhm. ma nga Belgique mhm. moom dafa tawatoon mhm. woo ma ni ma sëriñ bi dama amee tawat bëggoon nga jox ma tur yàlla wu ma liggéeyi ngir tawat ji dañ ma ko baax na dinaa la ñaanal tur yàlla wu ma nga xam ne dama koo natt liggéeyi ko ngir yónnee ko moom liggéey ko bi ma ko liggéeyee man ba pare moom liggéey ko sax waaye moom moo wooteel boppam ni ma man daa mel ni li nekkoon ci man dañ koo rocc sànni ko fële nga xam ni séq guñ ñaan séq guñ waxtaan séq guñ dara li may yónnee ci xaalis ci àddee ëpp na téeméeri jëm mm-hmm. yoo xam ne moom ko may te man damay xëy rek gis ko sama téléphone sama tur sax ñu koy bindee baaxul tur yàlla amul kenn ku ko yor koo xam ni ab jaam dina ko soxla ñëw ci yow te doo ko jox mm-hmm. ndax nit yorul lu dul njëriñu loxo boo gis rek la ca tege bu dee yàllaa ko ca teg rek njëriñu jaam ñi mhm. kon aw yàlla képp koo xam ne soxla na ko mhm. yittewoo ko su jaaree ci man man dinaa ko ci jox boo xam ne mën na koo rabbi kon xam naa ne allahu nuru samawaati wal ardi moom bala maa dem nga jox ma secret bi ndax fi moom gis <laughs> na ci yow. waaw baal ma jëmaay kii rek ma ma ne ci fi mu ne ndax mu tënk ma. ndax ma waa baax incha allahu rabbi. jërëjëf seen Cheikh ci leeral bu am solo boobu noonu bokk na ci tey jii salaatu alam bi nit ñi dañuy dégg salaatu alam nabi salaatu alam nabi ma bëggoon nga wax ñu lan mooy salaatu alam nabi moom itam ak yéemu làmb waaw soo ko moom nag xam nga day loo xam ne jaam ñoo ko moom te yàlla moo leen ko jox ba pare digal leen ñu def ko ñoom ñëpp li ci di ngëneel nag kenn xamul nu mu loo xam ne suñu boroom da koy def malaayika yi dañ koy def jinni yi dañ koy def njanaan yi dañ koy def képp ku ko def wàccoon nga ak sa borom ndax yàlla na ko digal mm-hmm. wax nañ ni lu ëpp sëriñ man ci doomu aadama salaatu ala nabi mën na lu ko raw ci doomu aadama wax nañ ni ki nga xam ne moo ëpp lu muy tudd yàlla mm-hmm. ak ki nga xam ne moo ëpp lu muy julli ci yonent bi ak ki nga xam ne moo ëpp lu muy tuubal yàlla mm-hmm. ñooy nit ñi ëpp sens ci kaw foofu dégg nga mais nit ci kaw ci kaw suuf salaatu ala nag dinañ ciy dugg xalwa mhm. ndax dafa am ñaari lim yoo xam ni képp ku ko ci jàng da ngay gisal yonent bi sa bopp mooy képp koo xam ni jàng nga quarante et un mille salaatu ala nabi di nga gis yonent képp koo xam ne jàng na soixante et un mille salaatu dina gis yonent bi loolu téere mutasawwifuuna yi yëpp indi nañ ko ni képp koo xam ne jàng na salaatu ala nabi quarante et un mille fois dina gis yonent bi képp koo xam ne jàng na quarante euh, soixante mille na gis yonente bi ci dundam laata faat te bépp bëtub jullit boo xam ne tegu na ci yonente bi sallallahu alayhi wa ko ci ak jaamu yàlla kooku wax wax de njortu àjjana ëllëg ndax yonente bi wanewu ko gannaaw ba nga xamee ni faatu na képp ku sag jaamu yàlla àgg ci nga gis yonente bi ci jamono yii ñu nekk ci te jaare ko ci jaamu yàlla wala ci julli ci yonent bi wala yonent bi feeñoo rek ne na rafetal xamal yow moom ëllëg yow ma la xëyam sa àjjana rafet na insha allah jërëjëf Serigne Cheikh loolu itam na quarante et un mille ak soixante et un mille mooy lim yi nga xamante ni daal mm, boroom xam-xam yi wax nañ ko ci salaatu alam nabi mu doon lu mucc ayib bi tamit beneen a ngi ni boo xam ne dañoo xaw niru waaye xam naa ni am na lu dox ci seen diggante muy salaatul fatiha salaatul fatiha xam nga moom ñu jógee ci Muhammadul Bukri moom it salaatu bu am doole la dafa nekk salaatu boo xamante ni ci nii boroom xam-xam yi wax nañ ci waaye dafa am awliyaa boo xam ne moom moom lañ moom lañ ko moomale mm-hmm. mooy Cheikh na Tidiane moom moom lañ moomale salaatul fatiha mm-hmm. li mu ci indi ay ngëneel nag dafa bari mm-hmm. waaye wax nañ daal li gën a néew ci ngëneeli salaatul fatiha mooy ramb doomu aadama ramb doomu aadama mooy gën a néew ci ngëneel gën a néew ci ni mu lëjee ak ak ak ay bagages am. wax nañ ne salaatu fatiha moom ramm doomu aadama gën a néew ci ay ngëneelam. Mhm. wax nañ itam borom wax na ni lépp lu ci ab jaam sàkku fii ci àdduna yàlla fii la koy joxe bala faat. boo ci sàkkoo jaamu yàlla. Hmm. jaamu yàlla gi dañ koy nangu fii. Hmm. boo ci sàkku woon àdduna yàlla la jox àdduna fii ba nga jóge. moom salaatu la boo xam ne moom it mm-hmm. ci salaatu yi nga xamante ni dañoo bokk ci xaqiqa mm-hmm. dëgg dëgg dëgg mm-hmm. bokk moom salaatu fatiha moom moom kon mu mel ni rek Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye amati na solo ci leeral googu waaye daal xam naa ni ni nga ko waxee léegi doomu aadama ak la jëm <laughs> lu ko mën a ram moom defe naa ni loolu doo doole jëm moom fi nekkoon fi wax ne li ci muy def ram doomu aadama ci la bokk moo ci gën a néew bokk na ci gën a néew allahu akbar daal ku ku yóbbu daal jaamu yàlla te delluwaat ci suñu borom rek ni koy faral di waxee fi mu toll. waaw nit nag li ko indi ci àdduna mooy jaamu yàlla. Mm-hmm. la koy muccal àllaaxira mooy jaamu yàlla. doomu aadama loo def ci àdduna lu dul jaamu yàlla loolu perte perte nga ci yow dañ wax bi yonent bi li muy baax baax lenn doom nga taxoon yàlla yónni ko ci jaam yi mooy mu digal leen ñu jaamu yonent yi weesu woo nit li ñuy baax baax lenn doom nga taxoon yàlla yónni leen ci jaam yi mooy ñu dig leen ñu jaamu yàlla Mm-hmm. te taxaw kaw suuf bari lu ñu fiy tudd yàlla mm-hmm. ndax jaamu yàlla moo ñu fi indi ne neen indiwuñu yàlla suñu boroom nag moom wax na nee na mm-hmm. ki ragal yàlla ci yéen mooy ki nga xamante ni si nii mu ci ñi mooy ki nga xam ne dafa nekk ci li ko yàlla digal te bàyyi li ko yàlla tere jamono jii nag dafa bari ñoo xam ni li leen yàlla tere ca lañ nekk. wallaahi li ñu yàlla digal lañ bàyyi. kon jamono sens contraire ba lañ lañ waaye ñi mucc daal. mooy ñi nga xam ne jël nañ priorité. Mm-hmm. def ko muy jaamu yàlla ak ragal yàlla. ñu mucc nañ fii baytaala laata ñu faatu. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima ci leeral boobu itam amati solo su ko defee rek xam naa ni euh, wax nga ko léegi ci biir wax waaye baatu subhanallah Mhm. dama koy dégg ci lu bare bare bare mu mel ni tuubal suñu borom la mhm. ma bëggoon moom nga wax ñu moom lan moo lan la làmboo moom dëgg-dëgg ak jëriñam lan waaw xam nga baatub subhaanallah tuddub mhm. sellu yàlla la yàlla suñu borom dayoo bi mu am boo ko mujjee tudd da ngay wax subhaanallahi cant mm-hmm. yàlla nag fa mu yem mm-hmm. boo fa bëggee àgg da ngay wax walhamdulillahi mm-hmm. yàlla ci boppam nag boo bëggee tudd yàlla ci boppam da ngay wax wala ilaha illallah da nga dégg màggug yàlla boo ko bëggee tudd da nga naan wallahu akbar ñeenti baat yi yonent bi woon a doomam ba mu ñëw Mhm. ni ko kaay ma jox la loo xam ni ëllëg yowmal xiyaam bu jàmm ñépp dajale woon seeni jëf teg ko ci balance Mm-hmm. nga saxalee ko nii ma la ko waxee boo ko tegee ci balance moom baat yi mu daaneel jëfi jaam yi rob mu koy jox lii la ko joxoon subhanallah walhamdulilah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar moo tax dañ ñoo wax ni xajul ci soxla jigéen parce que kaw yonent bi jigéen la ko joxoon bépp jigéen boo xam ni am na jafe-jafe ju guddi julli ñaari rakka benn rakka ba mu jàng fatiha ak qul wallahu ahad beneen rakka ba mu jàng fatiha ak inna ansalnahu fii laylatul qadri pare jàkkaarloog penk tudd baat yi ma lay wax junni yoon subhaanallah walhamdulillah wala wallahu akbar nee nañ lu mu mënoon toog di ko ñaan yàlla daf koy nangu ci jotaay boobu yaa ngi dégg dee jigéen junni lañ wax dee góor ñu ni junni ak téeméer ak ak benn bu dee jigéen mille bu dee góor mille cent bale yu xajul soxla baykat. est-ce que allah mu moo tax fi mu ne gars di bind fi mu ne code code yi. yow <laughs> moom nañ bind ndax teewul la rek. macha allah mu doon lu am solo si Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bi wax dëgg yàlla ndax lii moom dañu koy namm dañ koy bëgg wax dëgg yàlla ndax gannaaw suñu borom indeewuñu fi lu dul ñu jaamu ko kon yell na tey ji ñi ko war a jaamu xam fan la ñu war a man a teg seen tànk ngir mën koo jaamu ci anam ba nga xam ne moo war fi mu moo tax tey jii jotaay bi daal ñu bëggoon ko jël tënk lépp rek ci mbooleem turu yàlla yi rek fi mu ne mënta ñàkk xëy na ñu laal dara waaye turu yàlla yi daal fi mu ak salaatu yi daal moom mooy li ko làmbo bokk na ci sóoratul yaasin dañu koy dégg euh, miin nañu koy itam lool ci jotaay yu bëri ci jànkat yu bëri ci tajwidkat yi ci firikatu alxuraan yi waaye dëgg-dëgg yi sóoratul yaasin laa bëgg laa bëggoon nga waxtaane ko ñu waxtaane ko parce buñ la laajoon jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo jëlee yaasin joxe ko mel na ni joxe nga jëmmi yonent bi ndax mat bu mat alquran bu doon doomu aadama la dañuy wax ni yaasin mooy xorba dañuy wax ni sëriñu lasaraar bu xamul dara sax bu yoroon <laughs> yaasin di ci ñaan lu mu ñaan moom. Mbadou moo tax Serigne Lasaraar si. Serigne Lasaraar wax ñaan. lu ñaan yàlla mu nangu. daa mos a am ñetti nit yàlla yu toog. am benn waaye bu ñëw fekk leen fi toog di leen di leen am comme ci ñaan loo. bi ñëwee wax ko soxla bi ki mu njëkk a waxal ni ko mënuma ci dara mu dee ko ki ci des kooku ko ah xanaa ma ma jéem <coughs> mu ñëw wax ko ku ñetteel ki ni ko man dama am soxla nangam moo ma indi ci yéen ma ku ma ci ñaanal mu faj mu ne ko kële lu mu la wax mu ne ko mënu benn mënu ci dara mu ne ko dellu ci moom ma jox ko loo xam ne bu ko bu ko bu ko jëfandikoo faj sa aajo ba mu delloo ci moom mu ne ko xanaa xamoo yaasin mu ne ko xam naa ko mu ne ko jàng ci quarante ans nga ñaanal ko yàlla faj aajo yaa ngi dégg daal di ko lim la jox nag séddale ko ñun ñëpp ñëpp ñu bokk ndeysaan ak a gore <laughs> cee kon soo bi yaasin moom bawul dara mm-hmm. ci la ñuy dugg xalwa mm-hmm. am na lim boo xam ni mu ajab doomu aadama bi toll soo tëjoo xalwa jàng ko ci ay yaasin boo génne ajoo fa dégg nga ajab doomu aadama nu mën a toll mm-hmm. am na lim booy yor ci yaasin boo duggee xalwa génn àdduna ko duggkat xalwa yu bari yaatu ñuy jaar ndax muy buntu alquran moo bokk nit bu naan jëm jëmm ji mooy xol bi moo bokk te wax nañ ni tudd yàlla day raxas xol jullit moo bokk waaye dañ laa wax ne alquran xolub alquran mooy yaatu nit nag xol baa ci gën jëm bi doomu aadama bu xol ba doxee rek lépp dox muy moteur principal bi alxuraan yi sirru yi ci ndaje yëpp boo yoree sirru yaa si manipulé yaa si nag fatiha dañoo wax ni boo ko génne woon ci alxuraan la cay def su bari yaa ngi dégg ci néewal daal ñaan yàlla li ci gën a metti muy euh, muy muy duggal xalwa doomu aadama ci aajo boo xam ni daf jooni jooni na faju man mhm. lépp yaasin lañ ko jaare waaw kon yaasin ab fekkar la boo xam ne dañuy junj nii rek mhm. waaye lépp di ngëneel daal kenn xamul moom toll man dama ni woon gars yi ragalatuma dara ba ma xam ne yàgg ragalatuma yëfi xale ragalatuma yëfi mag waaw yàgg nit kenn du ko yor di ñaanandoo kenn nag ku ko wedd nag dangay am soxla boo xam ni wër nga ba dajal yàpp lu réew lépp kenn mën lu ko fajal nga ñëw ci man bu la neexee ma jox la yàgg nga faj ko bu la neexee ma jël ko fajal te itam boo déggee ñu lay wax secret polyvalent secret boo xam ne amul frontière ci dara. mooy yaasin kenn du ko téye fenn. surtout boobu boo ko yoree <laughs> malaayika du la téye rawxaan a dugg dugg noo bëgg a hmm. <laughs> <laughs> est-ce que fi mu ne la bokkul ni fi ne kon sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye sirru boobu la yor ba tax mu ni moom xalwa gu mu dugg bala ci génn xam fa aajo doomu aadama bi naka lay saafara woowu eh, man sirru sirri laa yor وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وسلام قولا من رب رحيم ak secret bi nga xam ne yow dong nga ko xam ak secret bi nga xam ne pour nit ñëpp la nga xam yëpp yor naa ko. man peeg nga ko téye fi peeg naa ko téye. moo tax soxla taw doomu aadama bi wala tawatu doomu aadama bi fi ne moom bokku ci li ngay jàngal. waaw moo tax soxlawuma sekk bi jógee ci nit. boo xam day ñëw ma koy jël di ko jàllale. soxlaatuma secret boo xam ne day jóge ci nit. man muy ma koy jël di ko jariñ ndax am naa secret boo xam ne day jariñ nit ba pare. sama soxla bopp tegee naa ko soxla si jaamu yàlla yi. waaw ndax man nekkatul ni sama bopp ma tax a jóg a jóg it. jëlee fi a baax baax ndax jotaay yee weesu ci nga fee ci ci la ñu eggoon ci loolu moo tax mu indiwaat loolu laajaat ba xam ndax <laughs> noonu la demee daal waaye gën naa leeraat ci sama bopp te def naa ñi ñuy topp di ñu suivre gën naa leeraat ci seen bopp. kon dañuy waxaat rek jërëjëf seen Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral boobu am solo boobu bokk na ci dama bëggoon ñu waxtaanee ñaar yi nga xam ne dafa sonal nit ñi mooy faru rab ak tawat joo xam ne dafa nëbbu tawat joo xam ne dafa nëbbu te ànd ak métti waaye dama bëggoon ñu jeexale ko waaye tey jii fi jamono toll ban secret wala ban turu yàlla wala lan moo mën a may doom aadama ji alal ju barkeel te lew ko bëgg am man waxoon naa la ni la lu yomb doomu aadama la ndax yàlla moo wax ni ñaan leen ma ma may leen ku ñaan yàlla loo ñaan yàlla yàlla may la waxuma nag ku ñaanu ku ñaanu moom xëy na nekkul ci lu ñu may waaye képp koo xam ni ñaanalum na yàlla buñ la ñaanalee yàlla yàlla dina la may li nga ñaanal képp koo xam ne toog nga ñaan yàlla itam boo ñaanee yàlla yàlla jox la ko ñaan dafa bokk suñ borom mooy hmm. hmm. jaar loolu dañ laa naroon indi kon dafa yoon wu ñu war a jaar te gars peeguñu yoon wi waaw xam nga buñ ne ca ngay seet a ngi ci penk bi nga jëm ci sow bi foo koy gis. Hmm? xaw ma foo koy gis. léegi. bu ñu la ki ñu xoolal ci kaw nga jëm ci suuf foo koy daje. daje kay dugg am. waaw gars yi dañoo yurul lu wér lu leen yóbbu. waaye fi mu bëgg a dem mi ngi fi ka ñuy seeti maa ngi fi. Hmm, hmm. képp koo xam ne wéeru na ci yàlla. dimbalul yàlla yàlla da koy teg ci ginnaaw dafa am yàlla bu ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bu doon dox bu ñëwee ba ci yow agsi yàlla mi dimbalul yàlla lépp dama ko teg sa ginnaaw ku ñëw ba agsi ci yow rek ma jël ko dimbal loolu la bind ne xuluubu jumlatil lasiina aflahu yatawajjahu rabbuhum wusla yàlla mi nga xam ne moo def ñun sopp ma yéen topp googu bu ngeen ko toppee ba agsi ci man maanaam bëgg ma rek bu ngeen ko defee ñëw ba ci man mm-hmm. man yàlla ma wéeru mooy yor dimbal li te ku agsi ci man mu dimbali la lay yàlla nag du mm-hmm. la yàlla doon dimbaliwaate ca mag mm-hmm. yor nii ko gën a bari gën koo gaaw ku bëgg yàlla dimbali la jëmal ci yàlla boo yàgg mën a dimbali waaye ku bëgg yàlla dimbali nag nga jëm sa iblis baagee moom mooy fekk mën ko lijjanti te bañ a. wax. Mhm. nee naa la baat yi gars yi di wax dal na du ci dëgg. sungu fa gën a gaaw alquran <laughs> matt maa gën a gaaw alquran <laughs> ay débat la rek. yooyu wax la joo xam ni jëmul fenn. ndeysaan. alquran moo fi ne di waxu yàlla. Mhm. ku ñëw fi nga ko bàyyi fi nga ko fekk. te ba ñuy wal bufta bi. Mhm. suñu borom nee na kàddu gi yéefar yi ci suuf rek kàddu gi yàlla nag ca kon nag ku bëgg a dem ca di nga wéeru ci nit yàlla mhm. ñaan tey la gën a am mhm. ñaan tey lañ ko gën a man mhm. ñaan tey lañ ko gën a xam li may ñaanal jaam yàlla yi mooy ñu dajee ku ragal yàlla ku xam seen borom mu dimbali leen Mhm. macha allah mu doon lu lu lu lu am am solo wax dëgg yàlla te loolu la askan wi teewoo ci jamono ji ñu toll nii wax dëgg yàlla na yàlla fay yiw ci dara yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wax nga ko waxoon naa ko léegi kon dama daal di ñëw rek ñu wàcc foofu muy faru rab faru coro rab àdduna sépp fi mu toll nii moom daanaka xanaa ñëpp am coro rab ak faru rab ma bëggoon nga dimbaleeti. ñu ko amul bariwul. Mhm. waaye am na ci yoo xam ni ku ko am dugal nga jëm ci gaaw mooy góor goo xam ni da am faru rab ba pare di ko ci jaxasoo kooku ñaar am la tëj ci wàllu wërsëg te itam boo moytul doo gudd fan dina def yooyu feebar boo xam ni yàgg-yàgg dina feeñ ci dund bi góor guy gént di jaxasoo faru jugal nga dindi ko dafa war a daj dooke ji muy def ci yow tax jaxasoog rab nag lu am ci gént la nit ñi see rab yi ba yëg seen bopp ñooñ dañoo war a jóg faju ji duñ ko bàyyi seen yaram yi baaxul jigéen ka saalika jigéen ju am for rab ba pare di yëg di jaxasoog moom mm-hmm. na jóg faji ko ku ci am faru rab wala nga am rab woo xam ne dafa lay sadd ngay daanu ay jëll te def yëf demal nga faj ko rab yooyu ñooy rab yu bon yi yooyu tax ñuy wax rab mm-hmm. ku ci am rab wu lay waxtu loo moom nga faje ko mm-hmm. ku ci am rab boo xamante ni dalay dalay départ loo maanaam du la may nga toog da ngay taxawaale ko nga dugg fa tambambalu rek loolu rabu bon la demal nga faj la yor naa ci secret boo xamante ni fii ayatu kursi yi la ñuy booleeg la mu yokk ñu la si naka xorom amul kenn koo xam ne dina defal sangat boobu nga sangoo ko di nekk ak rab amul mënta nekk secret bu wóor lañ ci yor boo xam ni rab yi nu mu la dikkee mën nañ koo fajee noonu rab nag man dama koy faj di ko taqale ak doomu adama rab dama koy taqale ak doomu adama am na fu ma jaaral ñoom ci ndimbal suñu borom ma maîtriser na seen mbir man naa ni daal dominer naa leen ñoom ñu dégg mm-hmm. waaye nag yii ma ci joxe exemple moom fu muy feeñoo noonu yooyu dañuy ñu danse yi mm-hmm. boo ko bàyyee sa àdduna doo ko jariñoo ne ko bëggee bàyyi mu mel tam damay faral di dégg ci ñu bëree bëri ñuy wax ne fi ne rab kenn mënu koo tàqaleeg doomu aadama ndax lu yàlla bind bindaale koog dab doomu aadama lu waral ñuy wax loolu ko. déedéet gisuñu nag kenn ku yàlla bindee nit boole koo baax. wax daa war a leer wala nga xam li ngay wax. xam mhm. dégg mhm. suñu moom bi mu bindee doomu aadama jëmmi doomu aadama ji boole na ko ay malaayika benn ci côté ndijooram benn ci côté càmmoñam. Mhm. kii mooy bind yi nga xam ne moom la def ci yiw kii mooy bind yi nga xam ni yooyu la def ci safaan. boole na ko malaayika mu yor ak dundam bis bu jamono dund ga jeexee day rocc roogamu faatu boole na koog malaayika mu koy indil wërsëg yaa ngi dégg boole na koog malaayika mu koy tawal waaye yàlla dafa bind jinne yi ber leen nële ñoo rab yi ñu dooni jaam comme nit ñi nit ñi nag ñenn dem jaxasoog rab ya yenn yi dañuy jaxasoog nit ñi nit ñi li bàyyi muy yor leen di sàmm di dund di lekk adduna bi jaxasoo ngay jàpp ci njanaaw yi loolu nga def ko rab yi tamit noonu la duggee ci yeneen yi ba am accès ci nit ñi yàlla boolewul kenn boolewul kenn ci rab ku ci am rab tàqalikoo la moom dem fële moo loolu leerati na wax dëgg yàlla seen Cheikh Ibrahima Ndiaye bokk na ci itam li nga xamante ni mooy tawat ju nëbbu wala tawat ju am ak métit douleur te dafa bëri ci réew mi ci jamono bii fi mu toll loolu feebar bu xew la ne woon naa la képp koo xam ni am nga tawat bu weesu juróom-ñaari fan demal nga seeti la daal. dootul taw. ku feebar. dem hôpital médecin ya xool la juróom-ñaari fan mënuñoo gis dara ci yow ñu la gis ñu dara ci yow. nga dem ci sëriñ sa ñu nekk ci yow jaar ak yow ci turu yàlla yi. xool say mbir juróom-ñaari fan mën ñoo gis dara ci yow. mais demal nga seet la du feebar. feebar bu mën a doon bu dalee doomu aadama suñu borom ñu sakk nit ki ci boppam nee na feebar boobu wàcc naa la ko. kon feebar yëpp lañ mën faj lépp lu nekk nag ci nit te mënuñu koo faj ba pare ni ab feebar la ko tuddee feebar waaye du feebar leneen la ma tax man la demal nga xool la dal ba dajee ak borom bàttin mu dindi ko ñun nag daa am loo xam ne dañuy faj am faja koy dindi am loo xam ne dañ koy dindi am faj mënu ko dindi dégg nga dafa am loo xam ne ci doomu aadama am faj ko dindi ndax bët dafay loo xam ni am faj di ko dindi ndax bët du ko gis te bala ngaa faj gis li wax am loo xam ni am faj moo koy dindi ndax bët da koy gis am loo xam ni bët du ko gis kon am faj du ko dindi la koy dindi nag ñu yàlla dénk ay mbiram ci kaw suuf rek ñun am sañ-sañu laal lool waaye du ñëpp ay laal lool waaye taal. jërëjëf na amati na solo macha allah xam naa du mujj ci joxe question yi rek xanaa dañuy daal di ñëw rek ci wàllu kaaraange na jamono ji ni àdduna wërngal këpp jaxasoo ku bëgg mucc ba ñëw ci seen Cheikh Ibrahima Ndiaye ban kaaraange la seen Cheikh Ibrahima Ndiaye mën a def ci moom ba mu mucc ci lépp. kaaraange de am naa ci juróom-ñaari sangat yu bokkul. lépp ci kaaraange la jëm. yëpp ay kaaraange yu bokkul la. <coughs> ubbeekaay ak bay rek yooyu am naa ci juróom-ñaari sangat yu bokkul. yoo xam ne yàgg naa koo yor waaye dama koy door a samp ndax at ñi ma ko war a moo moo moo moo door a bu ci nag nag ay sirru yi alquran la xam ne xel yooyu moom après xam naa dañ ko fi bagage bi na ko ba nit ñi waaye kaaraange yor naa ci ay sangat ubbeekaay yor naa ci ay sanga yu gaaw lool nag te ànd ak doole ji yéeme yoo xam ne moom salit lool na ñu bari fi nekk fan fan moom gars yi bu njëkk ngóor ak la ñoo toppe woon ak yooyu waaye fi ne nii kaaraange ak ubbeekaay moom moom wax dëgg yàlla moom bay tax la gars mhm. wax de mhm. dégg nga wax ko de. dégg naa la kay. dama dafa am fu mu ko teg fu leer moo tax. na nga leen woon ci teggi moteur teg moteur. loolu moom ñoom ñoo nangu mhm. <laughs> yàlla xeb dolli en tout réew mi dafa jaxasoo moo tax kaaraange daal moom fi mu ne yàlla. su ko defee mhm. adduna bi jaxasoo na lool. Mhm. waaye am na ci njiitu réew mi njiitu réew moo xam ni dinaa la wax fii lu ko mën a dimbali muy président France réewum France jamono ji population bi dañoo ànd ak seytaane ñoo xabtalu jëm ci kaw pouvoir loolu gis nga ñu ko arrêté wul fii ba septembre arrêté président bu daanu population wala tey dañuy ñaxtu dara ñu ci sow il faut que population bi ñu téeleen ci bàtt ñu daal loolu dama koy baaxa wala lancer message bi pour que dégg ko wuti ku leen ci dimbali dégg mhm. nga wax lii ngay gis muy ay vague yu jóg toujours dal ci kaw gouvernement France ci biir France dafa am laxasu ci biir hmm. mbir man nag ci yi ndax damaa gis ni maîtriser wuñ ko te li ñu ko foog lool te buñ ci jógul duñ ci am solution fii ba sept noonu lay mel vague bu dem beneen vague bu ñu dikk amuñu kaas ci lu amul bopp amul kenn loolu dama koo baaxee wàll sa waa jooju rek xamu nu mu tudd. Sarkozy déedéet Macron. Macron du moins. na góorgóorlu ci loolu moo gën muy tooñi te ba dugg. léegi lu tax nga bëgg koo def sama waay de yow ma jaaxal fi mu toll nii si. Ah, dama gis jamono yëpp tooñi woon waaye ko ko. wallaay ndeysaan. waaye ndimbal. Mhm. doo ci xool bind doo ci xel yow na yàlla tax rek. Mhm, mhm. ndax dama am xam-xam ci ñoom. bari ma ciy dimbali. waaye moom mbiram mi. dama xam ni bu ci jugul day yokk rek. waaw te war na arrêté ba ñu mm-hmm. mm-hmm. sant gërëm de la ñuy def daal di ñaanaat bu baax a baax rek xam ne jotaay tey bi daal xam naa ne moom mucc na ayib lool lool lool lool xanaa soññee nga wax dëgg yàlla tegtal nga digle nga itam def naa bu gaa yi déggee li nga fi wax lépp wax dëgg yàlla kenn ku nekk bu ci bu dina ci war a mën a jëriñ boppam lan mooy doon li nga xam ne moom nga kàddu yu mujj yi ci jotaay bi. kàddu bu mujj gi daal mooy yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp. Mm-hmm. ci lu mu mën a doon lu concerné l'islam. Mm-hmm. te yàlla gën a dooleel ak ña koy jàngale ak ña ca nekk mm-hmm. yi nga xam ne ñi ngi jafe-jafe. sëriñ daara yi nga xam jafe-jafe. kilifa yi diine yi nga xam ne ñi ngi amee jafe-jafe adduna bépp civil euh, jëm ci seen kaw mmh. ngir alquran jimtee ak diine yàlla ji mmh. yal na leen yàlla sàmmal boppam aaral leen boppam ci barke Yonent sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci waxtaan wu am solo bi waaye ci ci jot ñi nga ne wax dëgg nga ko askan wi sant la bu baax a baax gërëm la ñaanalee yàlla tamit suñu borom doolu laa taxawu doolu lay guddal fan mi gën a wéral cërit ba mbooleem yéene yi nga xamante ne naalal nga ko askan wi rek sama borom defal la ci lu kawe seen njot te mu ànd ko itam waaye itam sant bu baax a baax mbokk internet yi nga xam ne saa su ne ñi ngi topp jotaayu xam-xam bi wax dëgg yàlla di ci taataan di ci jëriñu waaye di di ko di ko safoo ndax di la safoo yi tamit kenn ku ci ne fa mu nekk lay bëggam ak yéeneem ak mébétam suñu borom mi dul jeexal dara yal na yàlla jàppandal lépp ci dara yonentu yàlla Muhammad ci beneen jotaay xam-xam ak seen jotaay émission bu mag bi nga xamante ne moom lañ leen digtal saa su ne jërë ngeen jëf wa salaam ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi bur ay maqaam yàllaw yàlla dolli noo